ginnaaw bi ñu félicité suñu camarade yépp nga xam ne saa yu ñu wootee amul guddi amul bëccëg ñu ñëw teewee mooy aussi waxtaan ak askan wi ndax euh, ci suba yëg ngeen ne conseil constitutionnel bi nga xam ne ci wàllu justice mooy maqaama bi nga xam ne moo gën a kawe jël na ay décision bi ci njëkk mooy wax ne voilà kalaame yi ñu doon def ci parrainage u Benno Bokk Yaakaar ñoom jël nañ ko teg ko fële dañu ne sax jarul sax ñu koy jàng kon parrainage boobu dañu ko valider ñu féliciter ci vraiment suñu militants yi nga xam ne def nañ un travail sérieux sur l'ensemble du territoire ñu ngi leen di vraiment féliciter ñaareel bi mooy li ñu jël ci décision ci liste Yewwi Dakar ñu jël ci acte maanaam dañ koy nangu ndax ca début ba bi werante yeeg ndax démocratie nag aussi lool da ciy am xëccoo yi ñun la ñu jàppoon mooy lu conseil constitutionnel décidé na ko nangu kon nangu nañu seen décision loolu nag mooy démocratie démocratie dafay tegu ci sartu yoon waaye li ñu dégg démb député Ousmane Sonko di wax jël Facebook am ne voilà mu ngi woo xale yi ñu génn ci mbedd mi dox jëm xaw ma fan dañ dem demuñ fenn sax moom ci boppam demul fenn sax ba mu ko waxee ba tey ma nga këram toog. biir voilà doomu jàmbur yi nag moom. ni mu ko gisee mooy moom bu jàppee ne am na loo xam ne lii xëy na du li mu bëgg mu woo doomu jàmbur yi ci mbedd yi ne leen ayta leen ñu dee ñëw ñëw leen yéen ngeen dee mu amee lu mu bëgg nag parce que nag boobu après kenn du ko dégg mais loolu c'est pas acceptable c'est scandaleux li tubaab naan scandaleux loolu kenn mënu ko nangu ndax Sénégal dëkku jàmm la démocratie dafa yomb ay sart la tegu bu élection jotee ñu wote waaye moom ni mu ko gisee mooy woon nit ñi wala génn leen doon ñeenti téeméer xam nga ñaari téeméeri junne yi nii dañuy dox jëm fii jëm fële maanaam bëgg indi tasaaru réew mi nag moom war naa xam ne munu koo taal tey munu koo taal guddi munu koo taal ba bëccëg Sénégal moo mag Ousmane Sonko Sénégal Ousmane Sonko dana politique ba jeexal bàyyi ko fi loolu moom aussi dafa dañu bëgg mu leer naa ñi ci boppam moom it ne fii jàmm ak salaam moo fi am nit ñi teg mbir yi ci wàllu démocratie ñu jël droit bi jiital ko bu ñu demee élection nit ñi vote librement waaye bëgg indi fitna parce que nag moom li ñuy bëgg wax nag mooy nitu fitna la moom li mu jàpp mooy li mu bëgg bu amulee nañu indi fitna nit ñi génn ci mbedd mi seen bakkan yi loru loolu Sénégal mënu ko nangu Sénégal quand ay décennies dafa am ñu liggéey pour stabilité bi dafay nekk fi muy suñu kilifa diine yi mooy leader politique yi nga xam ne xeex nañ fi pour am démocratie mooy soxna yi nga xam ne aussi liggéey nañu pour mu am parité pour que ñu mën a participer ñoom tamit donc loolu bu fekkee ne dañ ci liggéey plus de soixante ans soixante deux ans bi Sénégal nekkee Sénégal ba léegi benn nit maanaam moom mënta tas Sénégal mënta nekk mënta tas Sénégal il faut aussi que jeunesse bi ñu comprendre loolu ndax ñoom lay woo toujours jeunesse bi muy woo nag bu ngeen xoolee seen liste yi ñoom newuñ ci de defuñu ay ay jeunes ci seen liste gis nañ sax ñoom seeni i xëccoo ñiy bàyyi ñii gedd et cetera waaye moom bu fekkee ne am na lu mu soxla rek mu ne jeunesse bi bàyyi leen seen i atelier bàyyi leen seen i voilà seen njàng euh, bàyyi leen seen salon de coiffure fekk leen ma ci mbedd bi waaw loolu loolu loolu mun c'est inacceptable c'est inacceptable parce que nag ku Sénégal ñor la lay njëkk a ñor mooy stabilité ak jàmm surtout bu ñu xamee Sénégal environnement bi mu nekk jàmm jooju li koy indi mooy démocratie bi ñu topp waaye nag ne ci talibé yi menacé te lii muy wax nag mu xam ne tiitalul kenn kooku moom loolu moom it bu ko xamoon dana ci noppalu amul kenn ku mu mën a tiital wala ku mu mën a xoqatal amul parce que nag fii aussi c'est un pays de droit waaye nag militant yii toog militant yii toog fii te ne ci Sénégal yépp kenn ñàkku ci fay ci fay li ñuy bëgg jàmm yépp te ñu bëgg ko nag parce que mooy li jig réew am na yoo xam ne yi kenn du ko nangu te jeunesse bii ñuy woo ci mbedd mi nañu xam ne ñoom li leen soxal mooy ñu mën a jàng mooy ñu mën a faju mooy ñu mën a am formation mooy ñu mën a am liggéey kon débat bi na porté ci loolu ñun li ñu nar a def mooy ànd ak fulla ak fayda waxtaan ak sénégalais yi wax leen suñu ay proposition ci domaine yi ma leen wax muy emploi maanaam xëyu xale yi te président di ci góorgóorlu bu baax a baax mooy électricité te ñu xam ne depuis 2012 vraiment bari na luñ ci faj muy infrastructure amut foo mën a dem ci Sénégal te léegi amoo yoon muy ndox muy cadre de vie voilà muy jigéen ñi aussi suñu aada ak suñu cosaan aussi ñu sàmmal ñu ko aada jàmm la ja aada diisoo looloo tax démocratie sénégalaise vraiment euh, am taxawaay bi mu am kon loolu moom ci boppam tuuti na pour yàq Sénégal tuuti na ci yàq Sénégal Sénégal sax kenn da ko mënu la yàq kon loolu it bëggoon nañ ci waxtaan ak askan wi vraiment wax leen ne ni ma ko waxee ñun accepté nañ di conseil constitutionnel décidé dinañu dem ci ay élections voilà dinañu organiser suñu bopp ànd ak suñu jeunesse woo jeunesse bi aussi ñu mën a ràññee bañ a nangu aussi manipulation bi ndax nag aussi defe nañ ne xëy na yéen seen xel dafa woyof ba ku ñëw këf ko waaye jeunesse sénégalaise ku ko xam gis ni mu génnee massivement bi ñu indee Coupe d'Afrique bi fii. des millions et des millions génn célébrer nos joueurs ñibbi tranquillement xam ne jeunesse boobu kenn mënu leen a mel bouclier kenn nu leen a mel bouclier dañuy jàng rek voilà donc jàmm ji jàmm ji vraiment mooy li am solo Sénégal yàgg na organiser ay élections dans la discipline wala élections yi ñu mujj mooy les élections municipales ku gañe gañe te am nañu yaakaar incha allah. ne le 31 juillet Benno Bokk Yaakaar dina remporter largement ces élections incha allah